ben euh, responsable bu mag bi nek ci dëkk bi yoron fi jëwrin bu njëkk bi danaka premier ministre nekkon tamit directeur général CBAO wax ni moom balaa moo dem mom mo ranger traite bi nga xamne tay moy problème bokar Samba ji ak CBAO moko ranger bayiko fa te bokar bu bëggee mën na ko porter plainte ñun luñ koy laaj mooy bu ci jiitu kañ la directeur généralu banque amul leneen lu mu def lu dul ak service yi lu ñuy bëri ci banque yépp gestionnaire compte nekk fi chef d'agence yi nekk fi lépp moom daal moom moo yeyoo ranger ay traite moom daal moo yeyoo ranger ay photocopie chèque ay ay copie de chèque moom daal moo yeyoo document yi daal moom moo koy denc beneen laaj bi ñu koy laaj mooy waaw moom traite ban traite lay wax parce que moom nee na moo rangé traite bi bàyyi ko fa mais CBAO moom ñetti traite la indi ci benn opération benn opération bi lan la mën a amee ñetti traite tey yow boo demee banque jël sa chèque retiré benn chèque la du ñaar du ñetti bis bo taxawé di contester opération vous chèque bobu copie lañ lay ñu contester le 3 juillet 2008 traite baangi amul signature Samba mu mu deuxième traite ko créé le 21 juillet 2008 mu ngi signature de Samba mu ne non même jour bi mu créé wat traite le 21 juillet 2008 def ci signature Samba ko ñu ne Mbaye ban traite la woon ñaar amul signature wala ñaar nga xam dañ koo créé fan bi la wala bu mujj bi lay wax loolu lañ koy laaj question comme leer mbirum délinquance financière la du dara lu nit ki xamna ni def na jëyyam ci banque ba banque ba xamna bu baax ku def jëyya bi ba dakh ko waye xamna ni bu ko topé amana du jot xalisam procès bu gudd lay doon ñaari at lañ koy tëj bayiko mu ne dal pour ma jot sama xaalis na jël xaalis bok débuter compte bokal samba jéy problème té amul benn coow làngoo ñun nag li ñuy wax mooy bu ci jiitu mooy bu problème bi amee banque ba ne Bocar da ko amee cinq milliards six cent millions du cinq mille de du cinq millions de du cinq millions de du cinq milliards de du du du milliards six millions waaye 5 milliards 650 millions ku la ko ameel ku ne da nga am kayit boo foo bu dëgër boo téye waaye doo fa nekk di tergiverser naan bii laag amul signature indi leen naa dugal yan wut maanaam xam ngeen bu baax banques yi yéen ñëpp ci ngeen nekk waaw ku la amel 5 milliards 650 millions waaw di nga ko lebalaat kooku fayul yow nga lebal ko 11 milliards ba mu fay la ko ba mu jeex takk waa loolu doy na waar de beneen bi mooy. ku la ameel 5 milliards ko jox 5 milliards 650 millions mu jox la ay garantie këram ding ko bindal main levée jox ko ko ne ko yaangi ni nii amelatoo dara say garantie téyel yobbu ko ci notaire bi jox ko ko main levée bangi ni ci ko xamne ne nga dala amel 5 milliards 650 millions yéen ñep xam ngeen ni tay opération bo def ci banque bi bala nga genn ci gab sax ñu notifié la ko sa portable. bu waa boo joxee chèque benn waaye bu koy retiré ci saa si jot nga ko parce que jàll na waa nan la mën a nekkee moom traite bi moom ñu passé ko des mois après la ñuy door a découvrir ni opération bi amuloon ci compte Bocar Samba Dièye ñu ko ciy door a dugal yenn wul maanaa Abdoul Mbaye li may wax te di ko bañ danañ fa yegg parce que traite bi danañ ko juger ñoom ñu génnee trait boo xam ne valide expliquer yeneen traite yi fan la jóge ndax dañ koo luxus wala dañ koo créé woon dina leer parce que kat mbir mi yàgg na nag te yéen xam ngeen ni banque ku ko tooñ ku ne mën mënta def 12 ans ku tooñ banque kese ku tooñ banque kese mënta def 12 ans c'est parce que tout simplement dañ koo tooñ bëgg koo jaay doole te yéen xam ngeen ni opération traite chèque ba nga yor. waa danga koy defar ba pare jox ko waa mu dem retiré waaye ñun ci cas bi dañuy ne waa ji dafa dem retiré ba pare ñu doon ko defar chèque waaye loolu fu la am question bi yëpp loolu la léegi nag combat bi du combat Bocar Samba Dièye combat bi du combat wu ACSIF combat bi képp kuy sénégalais patriote digne de ce nom doo nangu mukk waroo nangu mukk benn banque étrangère jóge fële ñemew koo def waa dëkkam ñemoo ko def askanam ñëw ba fi dañu waye di loo banque Sénégal xalaatul dem Maroc def fa jëy ju melni wa ñun dal dañu wara tok dal ñun dal ñoo waye di ñun dal ñun amuñu fulla suñu bop nar be dal comme nu jappé won jam ba légui nonu la mom dal dana joggé dëkkam ñëw waye di nooñu am ñu mu jox xaaliss duggal fi def ñu neex dem yoonam gis ngeen alal bu lew du démé nonu bëri na fi ay alal li fi ne yéen ñëpp xam ngeen ko ñii ci faux billets yeeg ñii fu ñii fële lañ koy jëlee keesu état beeg bëri na fi waaye bii ñëpp xam nañ ne dafa lew parce que ba ngeen di juddu dégg ngeen turam mu leen di jaay ceeb jëlee ko ci bakk butiku mbagg ba tey yooyu noonu alal jooju ku ko bëgg yóbbu war naa naqari képp ku gëm liggéey képp kuy sénégalais di patriote. xam nga nit ki léeg nga xeeb ko teg ko fekk xëjul ci yow. man nag dama leen xamal ne kii ku ku la amal 5 milliards ci kayit bu mel nii amul entêté amul dara nga koy bind est-ce que lii jaadu na bi mu lebalee 600 millions ci UNACOIS moom Abdou Mbaye mu ngi dund mu lebal ma dimbali ma mu ne mënul lebal UNACOIS mun na ma lebal ma président conseil administratif UNACOIS mu lebal ma 500 mille 600 millions kayit la bu banque bi am moom moom moom la ñu bind. yàlla def ci sept jours ñu jaay ceeb bi ma ne ko fayal ñu fay dinaa ko ñu ngi may déglu bi ñu da amee li ci am deux cent quelques millions ñu ne ma loo ci bëgg ma ne ko bëgguma ci dara baal naa leen boobu maay président conseil d'administration euh, ku ñu wax si Dia Ndongo muy directeur général xam nga nag nit bu xifee lu gis lekk waaye dañ lekk boo moytuwul li yàq biiram man daal bi ñu ma laajee loo ci bëgg ma ne bëgguma dara jël leen man lii wane ne ñoom xam nga lii na dem laaj banque fu ñu bind avis est-ce nga lebal borom avis mu ngi nii mooy bu accès rek da ngay fay. livraison bon traite yi moom xam na ne nee na bi annulé nañ ko waaye man ana bu ñu koy annulé ana seen suma signature na ne annulé nañ ko te bii lañ waxoon atti pari lii dañ wax ne. ci seeta général man xam naa ne bi ma bi ma jëndee kër 65 jël béggéen ni loyer bi ci sonnaloon papa ma ma dimbali yàlla na ko yàlla yërëm fu mu nekk maa ngi àndoon ak kenn ci biram quatrième étage kan man yi foofu liggéey naa fa mi ne dara neuf mois 65 man bañ liggéey dara li ma jot liggéey léegi koo xam ne nag léegi bu ma jëndee kër gi benn luwaay bu ma soloon papa ma ma dimbali ba mu génn ko dem nañu bee génn ko gaa yi def tappale ba duggalaat ko papam moo wax ne comme ko génni nañu tey xulookat la bu ñu ko duggalaat ci kër gi nañ ko génne baat ñu génne waat boobu xam naa ne 65 mënul wut xaalis te boobu kër bi ma nekkoon luwaas 7 ans laa ko jënd man nag su boobu li ma gën a jaaxal mooy moom lu ci yoonu directeur général ak traite secrétaire muy di koy arrangé ñu di koy wër gisuñu ko kon kay ma denc xaalis bi na ko dox banque bi waaye man su ñu doon xaalis baa ngi nii sax du ma ko laaj na ko jox banque bi banque bi de loolu ma jël suma xaalis man jëluma moom jëlul suma xaalis banque bi laa jox suma xaalis kon nag man banque bi laa war a laaj suma xaalis mais séer na nag su amoon xaalis mu ne boo ko am xaalis baa ngi nii ma ne ko jox banque bi banque bi de am na benn autorité bu ñëwoon di xeex ak man boobu directeur contrôle public dafa bind mu ne bul def lii defal kayit bii li ma la sant benn autorité mu ne naa ko jaay ma bañ ñu demee mu ne bookar kii ku waat ma ne ko waatul ci jaay ceeb dafa waat ci service am waaye yow directeur contrôle public boo bindee kayit nga ne bul def nangam sañ ma ko def ñu nekk di xuloo la yàggul papam ñëw jóge kees ñëw mu ne jaayal suñu papa ma ne ko déedéet nu ne lu tax ma ne ko yaa bind kayit nga ne bu mu jaay kenn ku dul nii li nga wax rek lay def wala nga xotti kayit bi def beneen léegi moom ci boppam comme que moo dencoon tereet bi léegi dañu ko daaj tereet bi original na ko génne te bu ko génnee mu wax it bateau bi rapport bu ko bi nga xam ne ci def expertise bateau bi wane ne tant de poids la bateau bi Guinée la nekkoon déjà c'est 6000 tonnes

bu dul benn bu dul ñaar waaye nag su ma lebelee dama koy fay soo fekkoon temps bi ma nee dama bàyyi commerce xam nga léegi li may coow nii ah soo fekkee li ñu jàngal am na allaaxira du man maa koy layoo ñeneen ñoo koy layoo ñi ma aaye woon bay ñoo koy layoo comme que dem naa bee mun a toog ci rajo léegi léegi juróom fukki at ci fii musuma am samedi musuma am dimanche musuma am feet musuma dem lamba musuma dem football waxuma leneen